waaw pour commencer dama leen di wax ne leen man xëdd moom sonaluma ndax ndooy laa san donc eh, daanaka noonu laay jógee rek dem liggéey ji te su ma dogee eh, ba pare damay bëgg 30 minutes après rek teg ci ndoguli waaw parce que moo gën a woo xam nga woo weeru koor moom système la da ngay xam nooy doxalee rek boo ci bëggee génn. waaw daanaka man comme que lébu laa te ci askanu lébu gi laa bokk ñun xam nga ceeb moom dafa am solo si ñun waaye dafa fekk ne ne du chaque jour la ñuy lekk ceeb quoi ceeb bi moom dañ koy varier trois fois dans la semaine sinon yi si ay lentilles ay ay ay ay haricots genre yooyu moom la ñuy moom la ñuy gérer pour ndog bi quoi. waaw ñeneen yi nag su leen neexee dañuy dóor ceeb chaque jour daal loolu moom garaawul. waaw daanaka jour match quand même jour match moom du ma woor jour match moom du ma woor parce que c'est pas conseillé et puis nit xam nga booy basket booy sport da ngay soxla énergie dangay ngay soxla kàttan te boo wooree sa léppay wàññeeku donc euh, loolu mom da don day da day xaw metti quoi wayé entraînement quand même mom damay wor parce que d'habitude entraînement yi ñu ko don ñu ngi koy programmer ay 17 h wala des fois après donc donc euh, yoy mom posé wul problème quoi entraînement mom damay wor mais match mom du wor mom waaw pour tàggatoo maa ngi ñaanal àdduna bi jàmm waaw ñu jéem a góorgóorlu fexe ba génn ci mbas mi yàlla ji taxawu ñu si jàppale ñu si ndax affaire yi moom metti na trop metti na trop yëngal na àdduna bi yëpp waaye nañu gëm rek xam na ne la dina fi jóge incha allah waaw di ñaanal tamit suñu basket bi jëm kanam surtout ñi top si ñun xam nga ñu jàpp ci bu baax a baax góorgóorlu rek yàlla bari na sutura et puis ñu am dirigeant yoo xam ne dinañ leen xalaat incha allah